وهبت وكل فاز نفسا فوسردا وقبل السلام الذي بغت تركا كتبت وكل فاز waaye bis bu ci bi nee kii dafa ñëw këram. ndax nee na bàyyam ba muy tukki. ba mu jógee Touba jëm Taïba Cekkeen. dafa jaar kër maam Cheikh Ibrahima Fall. war aw fas. taxaw ci bunt bi. nee na mu ni ndax Cheikh Ibrahima mi ngi ni ko waaw mu ni nuyul leen ma ko. nee maam Cheikh Ibrahima Fall ni leen Thierno ngeen wax ni moo ne ci bunt bi xanaa di ngeen di wax nekkut nee na ñu ni ko am am na de. nee na maam Cheikh Ibrahima Fall ci boppam génn bi mu génnee ba ci bunt bi. nee na mu seen borom daarul moxti mu war ci fas wi nee na mu ni leen sàkket yëpp wàññi leen coow wàññi nee na mu ni bu leen tijji bunt wi nee na maam Cheikh Ibrahima Fall ni daanee leen sàkket yi ndax kii du bunt fu koy wutal nañu daaneel sàkket yi nee na borom daaru moxti ni ko dama jëmoon tay tay ba cekkeen rek de ni naa fi jaar nee na maam Cheikh Ibrahima faal ni nañu dindi li fi nekk lépp jox ko nee na ñu dindi Fall ni ko li fi des itam yoolu fi nekk boo demee ci kër ga daana ko indi ndax man ne ma na maam Cheikh Ibrahima Fall ni ko man de Serigne Touba képp ko xamante ni Serigne jox na la dara ci àdduna yoqoolu naa ngir seen cër ba ba xam ne la Serigne Touba jox nee na nee na maam Cheikh Ibrahima a ni ko ba mu des yow mii nee na mu ni ñoom ñaar de xaw ma ci seen i jëf dara. jërëjëf Mbacke loolu de leer na nañ loolu leer na nañ Mbacke ñoom ñi tam ne sëñ bi loolu sëñ Moussa di wax naa ña daa jiitu nañ aw yoon wi ñuy topp topp leen. ñoom day ñooy pekkub yoon wi ñooy ñàkkub yoon wi fu mm-hmm. liggéey réy ci yoon wi ñoom lañu ñu koy jox seenu taxawaay rafet na lool kon naa ngi ñaan mm-hmm. sunu borom yàggal leen fi yàggal fi sëñ Mountakha yàggal fi sëñ Cheikh Jëmb Fall boo mm-hmm. muy Mbàkke nga yàgg fi kaw na yéen sëñ Basiru nee na na ngeen wax sëñ Cheikh Jëmb ni ko lépp loo xamante ni njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall nga ca donc ñoo ma koy ànd nee na li fekk nekk moom. raxasan ba wasir nga fa xam lu saraara bi la fa dabdu wa kulli fa raxasan ba wasir nga fa xam lu saraara bi la وفاني عفيس مانع جملة الهداية ولي غاد أخبابا بهم أسر المسكار